waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi dañuy jéggulu su kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñu toog ci kaw na ñoom di leen jéggulu it ci yéen euh, fii ñu toog ngeen toog ci suuf damay àbb rek kàddu yu sëñ Omar Baye tekki ni yooyu mu utilisé woon ci waxtaanam ci jéggulu ñu leen jéggulu woon ci waxtu xam-xam waaye soo soo uh, waxtaan la woo xam ne rek commission culturelle bi ñoo ko sàkk ci te mënuñ leen a gàntu ñu daan ne kon nañ ci barkeelu ay béy barkeelu ci as waxtaan su ndaw rek su ndax dañ ko bëgg a gàttal liñ préparé woon sax xaw naa takku as la waaye dañ koo bëgg a gàttal daal ndax uh, reer yi ñëw na te am na ñeneen yu war a waxtaan kon man sama intervention bu ndaw rek ci li ma ko bëgg a accès mooy liñ naan liggéeyal Serigne Touba xitma baatul xitma nga xam ne murit boo wax mu ne la liggéeyal Sëñ Touba liggéeyal Sëñ Touba liggéeyal ma gis ne baatul xitma boobu bu ñee liggéey rek li ñu xalaat mooy liggéey ci sa àll te liggéeyal Sëñ Touba yemul ci àll sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal day faral di wax ne liggéeyal sëñ Touba li ci jiitu mooy liggéeyal ko ci jëmm yi waaw liggéeyal ko ci jëmm yi mooy defar jëmm yi ba takkaayoo jikko yu rafet liggéeyal ko ci jëmm yi ba ku la gis xemmee ma dugg ci mbirum sëñ Touba kon loolu mooy liggéey bu njëkk am na lu mu koy waxee sax naan kuy joxe dangay joxe lu baax kon defar sa jëmm ba mu rafet nga soog koo joxe dañ naan joxe sa bopp waaye defar sa bopp ba mu baax nga soog koo joxe mooy li gën euh, kon gis naa ne liggéey bi mën ngaa liggéeyal Serigne Touba bi jiitu mooy nga liggéeyal ko ci sa jëmm liggéeyal ko ci sa alal liggéeyal ko ci sa njaboot liggéeyal ko ci sa jur te bu ñëwee jur mooy lépp loo saytu rek liggéeyal ko ci xam-xam nga xam ne am na ñoo xam ne fi ñu féete liggéeyal Serigne Touba mooy di ko jàngaleel ci daara yi ñii di ko jàngaleel alquran ñii di ko jàngaleel xam-xam ñii di ne ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ñi koy ñi ngi liggéeyal Serigne Touba te di ko jiiteel ay jàkka ci biir Touba kon buñu nee notion de liggéeyal Serigne Touba rek buñ jàpp ne mooy euh, jël sa alal joxe loolu benn la ci benn la ci liggéeyal Serigne Touba benn la ci jumtukaayu liggéeyal Serigne Touba kon buñ ko buñ ko yamale foofu donte nag boo ko saytoo ba saytu loolu lépp fi muy dell mooy ci nit ki am loo xam ne moom la ko yàlla dénk mu mënoon koo yamale ci boppam jël ko nangu koo ñàkk ngir Serigne Touba waa seetee liggéey yëpp foofu lay jëm nit ki am na xam-xam mënoon koo yaxantu mu jël xam-xam boobu liggéeyale ko Serigne tubaa nit ki am alal mënoon koo def ci këram mënoon koo def ci leneen mu jël ko liggéeyal ko nit ki am am njaboot mënoon ak njaboot ni mu neexee mu jël ko dénk ko kenn ci waa kër Serigne Touba ngir yarale ko ñëpp jox leen ko ñu yaral ko ko yu mel noonu gis nañ ko ba tàyyi ci yoonu murid bi donc euh, liggéeyal Serigne Touba daal foofu point bi ma fi xam ne moom laa ci bëggoon a wax mooy ay forme yu différente la yoo xam ne mënees naa liggéeyal Serigne Touba ci forme yu bëree bëri yëmul rek ci joxe sa alal donte benn la ci euh, beneen wàll bi nga xam ne bëggoon nañ ci waxtaan te dañ koy tëb ndax euh, ñi fi waxtaan jaar nañ ci te jërul ñu ci del si mooy bëggoon nañoo waxtaan ci euh, màggal bi ay jàngat yoo xam ne tukki bi ñun mën nañ ko cee def te xam naa ne mën nañ cee jaar ci lu gaaw rek mooy boo jàngatee tukki yi tukki bi jàngat ko ci wala fali Cheikh Moussa Ka ak mbooleem archive yi ngay gis da ngay gis ne li nga ciy njëkk jàng rek mooy dëkk mooy mujj waaw mooy li naan la constance da gis ne sëñ Touba li jalonné euh, tukki bi yëpp mooy constance maanaam euh, musta soppi doxinam musta soppi doxinam musta soppi doxalinam moom yàlla la féetewoo rek euh, nit bi bi mu demee ba bi muy delsi ñaareel bi ma ci jànge mooy ku jox sa ku jox sa lépp yàlla mu tëyal la sa lépp bàyyee gi mu ko bàyyee njaboot gi bàyyee gi mu ko bàyyee lépp loo xam ne moom la saytu woon jublu yàlla loolu danañ ci tukki bi da nga ci tukki bi te yooyu benn rek njàngat yi muy fonk charia ndax buñ nee julli ci géej gi rek ñu bari dañuy yéem kéemtaanu julli ci géej gi waaye julli ci géej gi li nga ci war a njëkk euh, jànge mooy waxtu jot na moom mu ne danaa julli xawma damay julli ci kaw xaw xawma damay julli ci suuf waaye ndigalul suñu borom bi ma bàyyi mu jàll kon loolu ñun en 2014 loolu lañ ci war a njëkk a ndax bu dee julli ci géej rek am na ñeneen ñoo xam ne mën nañoo julli ci biir ci kaw ndox te seenuñ pëndub sëñ Tuubaa kon loolu du loo xam ne dañ ciy natte maxaama nit euh, woykat yi nga xam ne ku mel ne sëñ Bay Jaxat sax da koy ne maanaam karaamaa gi xar baax loo xam ne moom dañuy natte góor yàlla waaye dëgg dëgg karaama mooy ñàkk mooy loolu ñëw na lu bari ci euh, ci ci ci ay woyam kon way yi nga xam ne moom lañ jëloon rek pour mu ban bañ a gudd mooy euh, ab liggéey boo xam ne dañ koy def ci taalibi sëñ Bay yi yoo xam ne dajale ci lu bari bi nga xam ne dañ ne woon tey mën nañ cee indi gudd na nag waaye xam naa euh, dañ koy yamalee ci ci nu mu gën a yembe rek muy boo xam ne dénkub Babacar Babacar nag mooy sëñ Bay hmm. yow Babacar am nga say kem am nga sab sëriñ it te boole sab sëriñ ak say kem asal jafe na sa kem yi sant na ngir yow sab sëriñ gërëm it cant ak ngërëm moo la war yow lii nga am jafe na te gépp may boo fi dégg boo fi gis jegewul sa may ga santal gërëm dog bii nga for jafe na yow for nga ab dog bu rëy du te yàlla na la jég ba yàlla atte mu rees ak jàmm mat jafe na ku yàlla jubloo matal kenn mën la tee ba matul lëf mën la tee ba matul tee yàlla def jafe na maanaam tee tere yàlla def tere yàlla def fexe ba yàlla du def jafe na mhm. lu yàlla jubloo joxub jaamam ku koy man a faj lu yàlla jubloo defit kuy dox banaa jafe na loo xam ne lii nar na koo def loola yomb na li loo xam ne lii naru koo def loola nag jafe na yéenee la yéene sa kem yi yépp jàmm ku yiw lu sab sëriñ digle it bul neeti lii jafe na te lépp lëf lu mu def loolee nataaru fi yow bul sikk bul diingatit ànd ak sëriñ jafe na kon bul sikk bul diingat ànd ak sëriñ jafe na yokkal sa itte te farloo farlu mel ni ku dee ànd ak ñi dund ak ñi dee moo gën te kat te nag jafe na lakkal tawee ah, bayit yi am nañu ne di ko sëñ bi ne soññ ma wala jàjj ma te loolu waxin la rek sëñ bi mooy soññ boppam ndax li li sëñ mbay di wax moom ci nee na ah, maa maa ko dénk samay wax kon bu ko sëñ tubaa ne soññ ma sëñ tubaa mooy soññ boppam am nañu ne bayit yi bokk na ca lagal tewee nit balaa jiitu kemem xaw a dee xëy jiitu say kem te deewoo wettkat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jiwul jafe na lu ñëpp def ku ko def waaw mooy bay lu ñëpp def ku ko def doo mën lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na di bay di lekk di bay di lekk ka jël say soxna di jafewul bay jébbalee ka bàyyee jël soxna day jafe na di jëndi fas aka war lii it ba tey jafewul xam njëkk jébbale war sa tànk nag jafe na kon loolu ñun ñi nga xam ne dañ cee toll euh, boo demee ba nga xam ne fas moom da koy da koy jàppe ne mooy oto rek mooy voiture waaw sëriñ bi day wéy di wéy kenn mën la xam fa mu yem kenn mën la xam fa mu jëm jot am xelam jafe na mbooleem ku tàggoowul ak bànnee xam ak bakkanam du mos ci lem gi mu yor lëf mos ci lëf jafe na nekkul ci àddina jëmmam jee fi nekk di wax lu baax a kay def li dee tax xam mbiram jafe na kon lii baat wax bi doy waar la maanaam moom fekke na jamonoy Serigne tubaab waaye mi ngi naan la nekkul ci àdduna jëmmam jee fi nekk di wax di def lu baax lii lee tax xam mbiram xam mbirum sëñ Touba jafe waaw def ko sëriñ ak waxtaanee mbiram jafewul mu def la waaye ak ay nawloo sa mbir jafe na def sëñ Touba sëriñ ak waxtaane waxtaanee ay mbiram nee na jafewul. moom sëñ tubaa def la waayam ak ay nawloo sa mbir jafe nag looloo jafe nee di dem këram ak a delsee kii waxam jafewul di dem këram ak a delsee kub yaram jafe na mhm. di dem këram ak a kii alal jafewul di dem këre di dem këram ak a delsee kii ngërëm jafe na waaw dellu ne di dem këram ak a tàbbi néegam it jafewul di dem këram nag ak ay tàbbi xolam jafe na ndimbal yu rëy yi mu yor yàlla nañ ko jox ba mu am yu dee fi wax jafewul yi yii dee fi wax jafewul ak yii ñu naa jafe na pëkkee ngi dënn te fees ak marchandise ku nit li lee jafee def lu dul lii kenn du wax jafe na bu yóbbuwoon xottu neenam rekk dee su ko naw yóbbaale ñépp it te suuxul suuxalul jafe na ku nam ma suux ku nam ma suux ak a suuxal kenn nag war a dem ànd ak sa bopp te dem yow rekk it jafe na hmm. yàlla amee mucc moo fi musle yàlla nanu may nu mucc musle ci barkeb Bamba dem jafe na kon foofu lañ koy yemale donte way des na lu baree baree bari bu ko defee ñu mën a may ñi nga xam ne ñoo gën a seen xam-xam moo gën a màcc ci waxtaan bi bu ko defee ñu man a yaatal ñoom wax na jërëjëf